hello mega mais sami serita paradis masay balago faramaren qui est là parmi nous yéen a ngi ànd ak suñu people tv ci ay chroniqueur Rita kom nu mu koy defee saa su ne ah démb nag la denc moomi dani ci këram gu mujj waaye nee naa la kàddu yu fa wax yépp a rafet seeday rafet ba pare imaam yeeg ñëpp daal di koy gunge ku ci nekk rek war nga xool exemple ci moom ndax nee naa la nga nekk xale ba pare génn àddina ay kilifa ñëpp bàyyi seen yitte ku ci nekk bàyyi li nga doon liggéey rek daal di lay gunge sa këru dëgg loolu ku nekk war nga cee jël exemple leer Sénégal bii nag nee naa la xoola nit dina fi dee ñu woo kilifa ya ne nañ ko suul ñu ne duñu ko suul ndax ci internet bi la nekkoon doonab saagakat ab nday dañ ne ma woon sax bul wax te bul def vidéo mais dafa baax rek nga def ay leeral ba ma defee sama vidéo ñaanal soxna moom yi mu tedd mi yàlla xaare ko àjjana am lu ma juum ci vidéo bi video bi ni mu guddee ma di ko ñaanal di wax ku baax dem na di wax sama yu baax di ko ñaanal dem ba ca fee ba def erreur. di génnee ay awraam kenn du ko kenn du yàq ay yitteem di ñëw di ko suuli bu ngeen yóbboo nag yéen ñu yor jikko yu doome raam yi sauvage mbaam àlle bu ngeen yóbboo changé ndax lii ku ci nekk war na laa yee te bés bi mu am ni ku nekk di nga ko am jiitul maa ngi ñëw rek moo fi am waaye dee moom ku juddu yaa tooñ dee ndax dee moom day ñëw à tout moment yéen ñi ngeen xam ne nag da ngeen nekk ci internet bi amu leen respect vergogne zéro di saaga wante ay ndey di xasante di waxante wax du ñaaw di yekkante mbelengaan gis nga bésu moomi dani bii bu yóbboo ku ci nekk nga jël ci exemple ndax di nga dee ñu war laa suuli xoola kilifa yeeg ñëpp ku ci nekk ne du ma yàq sama liggéey ci koo xam ne lan moo nekkoon liggéeyam saaga ndey wax ju ñaaw sosalaate bon soxor iñaan wax ju bon mu xoola bu boobaa kilifa ni kilifa yi ne kenn man du ma déplacé wu ndax nit kooku kon nag bu ngeen yóbboo ngeen changé seen jikko yu bon yu ñaaw yu soxor yi yi ngeen xamante ne moom ngeen yore addina amul solo ku jékku da ngay baale Sénégal moon ngeen a xasante mën a yekkante mbelengaan yéene wante wu leen jàmm xoole kii nga xam ne jëkkëram politicien la mu nekkoon ci média boo xam ne ñëpp a ko xam di ci liggéey effacé wu kenn musu koo gis ci TikTok YouTube Facebook Instagram kenn daawu ko gis fenn mu effacé wu nekk nit ku am dignité ak personnalité am classe xoola te ak a mënoon a génn ci réseaux sociaux yi nag ndax bu dee oto yor na ko bu dee ay or takk na ko bu dee mbubb mu riche sol na ko te bu dee ay waajur yu baax rek am na ko ba mu doy ndax nee naa la ku ñu ne kuy sayaa ñu ne jaaga kan mooy sa papa ñu ne papa coon mi ñuy jooy te noppeeguñu kon xam nga ne kookoo gën a mën a génn di wane wala muy wax waaye dafa effacé wu dëddu àddina nekk rek ci lu baax koo wax mu ne nit ku baax la employé mag waa këram ak ñépp koo wax mu ne moomi ku baax la woon ku am personnalité ak dignité man nag kan laa yërëm mooy Pendo Guissé mi nga xamante ne xaritam la woon te muy lu dëggu ci moom ndax Pendo à chaque fois dama ko doon dégg ci ay vidéo am mu naan saa yu ma banqué euh, moomi laay woo moomi moomi mu buggaan ngay dadi laay woo rek su ko woowee rek mu fajal ma sama soxla xanaa kon kookoo bëri sutura am leen sutura Sénégal amatuñu sutura dañuy wuññi wante ay sutura ku la ciy may day xaar ba mbooloo ma teew mu lay doog a may mayeeg njistal duñu la may te écran tàkkul bu écran yi takkee ci la ñuy ñëw di mayee mayee njistal bëgg nga waxal leen seeni xeetu baax baax gis nga seen dundin yooyu bu yóbboo nag ngeen bàyyi ndax yàlla moom à tout moment rek day wone boppam di ñu jox exemple boo xamante ne ku ci nekk da nga war a changer ku ci nekk da nga war a xam ne yoon bii nga nekk bés dina ñëw ñu gas pax ba mu xóot suul la ca te sa bàmmeel yow rek yaa fay wéet sa jëf rek fekk la fa say jëf jëf ya nag na baax moo la fay fekk nga nekk ci ma yow kese ku yaakaar ne nag yow da ngay dund ci àddina doon ab wala nga am daraja ngay yaakaar ne doo dee bés du ñëw doo dee ñu dugal la ci corbillard bi di la woowee niw bi ku mu neex defal lu la neex amul benn problème e ala kama sala naaxira atoy sa sabali bref bu ma jugee foofu nag damay ñëw ci journaliste yi nga xamante ne ñoom man daal man man journaliste yi man mënuma leen comprendre léegi dëj moom ak ku ñuy suuli moom programme lañ koy def ak bës ku ne gàddu téléphone yow corbillard loo ci filmer ngay filmer topp artistes yi di leen poser ay question waaw naka nga gisee naqar naqar nuñ koy gisee lu dul metti bay bëgg a dee mettit nan ngay gisee naqar lu dul metti da ngay gis sax nit ñi ay noir fumé la ñuy takk parce que lan seen xol yi neexul ku ci nekk sa xol dafa tooy ngay jooy ci sa biir xol ñii di jooy muy feeñ nga gàddu ay caméra ñëw naan ay majaañ waa majaañ ñoo gisee déegi ah moom i sal nan la gisee lu dul mu metti bay bëgg a dee mu doon mbokkam jege ko mu ñëw soutenir ay mbokkam ci ci dëj bi lan ngeen di poser ay questions journalistes yi saytaane ngeen fumiste ngeen ràmbaaj ngeen mën a duul mën a sos du ngeen wax dëgg lu ni def ngeen taawi ko ku fa juumoon ba wax benn baat bu débordé rek ngeen ne acca nag ku nekk di ko partagé ngeen di ko partagé di jokkoor maajoor jokkoor leen topp sii di mel ni kuy dàqab sàcc journaliste yi amu leen sutura amu leen teggil amu leen yar topp sii di jóob yow nit ku ñëw ci dajab jàmbur loo koy posé ay question lan nga koy journaliste yi amu leen sutura amu leen teggil amuleen yar topp Sidi Diop yow nit ko ñëw ci dajab jàmbur loo koy posé ay question lan nga koy laaj lan moo ko indi ci dëj bi lu dul naqar bi mu ñëw bokk ko euh, nawleem ah lii mooy wane ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ku gis Sidi Diop ñëw Ahmed cu ñëw euh, Madiagne Seck ñëw ku ci nekk ñëw Sénégal ngeen war a bokk ndey ak baay te booloo doon benn xiiroo beeg ŋaayoo bi ngeen bàyyi ko xam ne fii loo fii xëcc yal na gën ca yow te loo yootu nga ñaan yàlla mu gën ca yow bokk leen ndey ak baay yéen artistes yi leen yéen laay wax bu nit gaañoo ngeen di tiit seen fit yi dem ngeen bëgg a delloo seen xel ca yàlla yàlla benn yàlla la de te yàlla jàngi fi de day ñëw ne la coppet yóbbu la léegi nit ñi sax feebaratu di feebaratuñu yenn feebar yi di dee doo dégg feebar da ngay jékki saa dégg ñu ne dee na bu ngeen yóbboo nag ngeen bokk ndey ak baay balaa maa dee nit dee gaañu ngeen nekk fanaan waaw moom kay ndeysaan ku baax la woon waaw moom kay ah, dugg na fii génn na fii yow ku baax la woon kay bi muy dund nga may ko jàmm bi muy dund lu tax mënu leen jàmm sante jàmmal aku ku nekk am may sa morom jàmm waaye fii ngeen di nekk di géer di xiiroo di ŋaayoo bëggantewu leen soppantewu leen ku àndandoo jayante weet jëwante ku ci ànd ak sa nawle di ko jay bu ngeen weetee di ko jëw baaxu leen santu leen yàlla seen jikko yi tànk changé wu leen ko chaque jour yàlla di leen woon mëninam rek di leen woon ay kéemtaanam rek chaque jour nag xoola yàlla woon ñu kéemtaan gu rëy ñu war cee jàngee bu ngeen yóbboo ngeen soppeeku seen xiiroo be ŋaayoo bi amul benn njëriñ juboo leen nekk benn te nag kër gu nekk lay yeewoo te man lu ma gën a metti nag ci artiste yi boo amee bànneex doo leen gis naqar daal la ñuy ñëw yow nit ki bu amatee bànneex del dem soutenir ko waaye yow nit bu amee dëj rek ci ngay def sa mbub mu rëy def sa say noir me di doog a dem boo amee bànneex doo dem e am ngeen jikko te am melokaan de am ngeen jikko te am melokaan boolee leen booloo leen doon benn sag yemul ku ci nekk yàlla dalaa jox sa wërsëg te balaa ngaa dee dinga ko lekk ba mu mët ab dërëm du ci topp nag saa yu matee da ngay dee fu mu la munti fekk da ngay dee bëggante leen bëggantewu leen ku ci nekk yaa ngi yaakaar ne sa moroom a ngi am àddinaag li ci biiram yéene woo ko jàmm bu sa moroom amee bànneex di ngénte wala muy def mariage ah wala mu nekk ci jàmm du la gis naqar daal lay am nga ñëw paccal foroxal jooy jooyu saytaane di wax waxu saytaane loo xam ne gëmu leen ko tegu leen ko fenn gis nga nag sama vidéo bere fag yàqay naa waru ko woon a am encore une fois moom i ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm yal na ko gënal fi mu juge yal na rëccu lan la doon def ci àddina ndax àddina bi da fiy nekk di fi dund mu méttee méttee métti bay bëgg dee boo deewee sax dangay ngay sant yàlla ne alhamdulilahi rabbil alamin yal na giseeg baayam bu baax ba reposer en paix ah doy na waar leen di abonné ci sunu people tv ngir ngeen mën a yokk sunu ay abonné da ngeen di bës ci s'abonné waaye tamit bu leen fàtte di bës li nga xamante ne moom moo di like bi jërë ngeen jëf